ñuy ñëw ci rassemblement bi nga jàngatal ñu ban ban analyse nga ci def docteur euh, bëgg naa également ñu taxaw est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui avec Amadou euh, qui soutient que euh, manifestation sa yu ñu ko interdire ci la ñuy gis débordement que suñ ko que suñ ko autoriser c'est plus facile en quelque sorte ñu autoriser manifestation Euh, di la gërëm bu baax Néné di nuyu Amadou comme c'est le dernier à venir et di wax aussi que bon le plateau est un peu déséquilibré je, je, je me sens un petit peu seule même si euh, mon mon camarade l'original mon, mon ex-camarade de parti l'original je peux le considérer voilà co comme un frère hein et, et donc je, je l'invite aussi à revenir parce qu'il y a toujours de la place euh, pour lui <laughs> à, à la maison alors tout d'abord je pense que li ñu war a njëkk def et vraiment je, le dis pour m'en féliciter mooy mm. euh, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est leur travail mais vraiment remercier le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité parce que je pense que sànq euh, ci propos yi génn euh, du ne euh, ça c'est machallah très bien passé du point de vue sécuritaire euh, il n'y a pas eu de débordement te loolu je pense que c'est à l'acte de l'État dans lequel nous sommes de l'État Euh, qui arrivait à perpétuer, mais aussi à bonifier son excellence le président de la République, M. Macky euh, je pense aussi que euh, ce qui est un petit peu déplorable, c'est que... waaw donc F aussi euh, ma dégg gis aussi ci ay image ne amoon na ay leader yoo xam ñu jógee pour jël kàddu dañ leen yuuxoo ma ne F24 bu def force la il faut que ñu gën a xool gën taxaw seetlu parce que li nga xamante ni tey moom moo am mooy donc ça veut dire que euh, sàppe yi maanaam jubagul euh, man nag may wax ne par rapport au F24 24 ñun ci li nga xamante ni mooy sénégalais yi nga xam ne euh, ñoo jox bopp Macky Sall depuis 2012 ñu feddaliwaat kóllëre 2019 feddaliwaat kóllëre 2024 pour un deuxième quinquennat ñooñu xam nga ci yenn force la ñu bokk ñooñu ñooñu dañoo bokk ci kuréel gu ñu naan 24 maanaam Sénégal 2024 parce que xam nga force mën nañu wax ne as groupe la avec tout le respect mais Sénégal moo ñu ñor bu ñuy wax ci li nga xamante ne moom mooy 2024 euh, damay ne bu ñu wax ay projet nañu nekk ci débat programme ñun foofu la ñu toll loolu moo tax nen ne damay wax ne mhm. Euh, li nga xamante ni euh, parce que da ma posé question nga ne ma événement yi ak tey manifestation nan laa ko gisee. Mhm. donc li ma ci gis li ma ci jàngat mooy euh, li nga xamante nii moom moo am mooy manifestation. dafa am lu ñu naan avant pendant et après ñetti segment yooyu ci bu ñu autoriser manifestation bi la. manifestation nag du du parce que danga bëgg manifestation am rek dafay am ndax état dafa am lu muy tëddee l' état est la prévention. l'État c'est la planification état tamit dafa nekk loo xamante ne ni am na ay foo xamante ni da koy gis nit ñi duñ ko gis am na loo xam ne dina ko dégg te nit ñi duñ ko dégg bu mu waxee nit ñi c'est voilà le commun des Sénégalais. donc loolu aussi lan lay indi mooy euh, tey euh, dañu war a bëgg Sénégalais yi dañu wara a bëgg ñi nekk Sénégal nag ak bitim réew. ndax ci kanam tuuti lu tax may wax bitim réew dinaa ci ñëwaat ñi nekk Sénégal parce que tamit bu ñu tëddee comme ni ko tubaab bi di waxee on peut dormir sur nos parce que nag. Mhm. sécurité am na fi sécurité bi ñuy wax parce que sànq bi ma déggee. mais est du am sécurité ñuy wax dafa mel ni ci beneen Sénégal la ñu dëkk ma sànq bi bi ma déggee. am sécurité boobu moo tax ñu war a euh, euh, encadrer yenn affaire parce que dafa am loo xamante ne muy marche dafa nekk ay acquis yoo xamante ne dañ dañ dañ ko am. waaw xam nga euh, acquis ñu gis ne que quand même c'est récurrent. ñuy uh-huh. tere ay manifestation peut-être looloo tax ñu ñu ñu ciy attardé wu d'ailleurs. xam nga ne ne de manière empirique mënuñu ne dañuy tere manifestation pour tere ko. parce que tamit comme ni ma la ko waxee l' état c' abord la sécurité préventive loolu moo tax ñu naan état sinon boo xoolee tamit catuma suñu bopp mais aussi maa ngi laal bant mhm. boo xoolee dëkk yi ñu wër environnement bi ñu wër euh, nga xool irrédentisme religieux bi ni mu jógee mhm. nga xool obscurantisme religieux bi loolu yëpp tamit dafa fekk ne euh, yenn saay état moo dul présent loolu moo tax ak fépp fu ñu mën a nekk ak lépp lu ñu mën a wax nañu préserver mais aussi di reconnaître que Sénégal quand même macha allah Euh, war nañu mën a sant yàlla bu baax li tax ma ma doon euh, sànq wax euh, li nga xam ne mooy diaspora bi. Mm. sànq dama dégg ñu naan waaw fu ñu toll gis ay FDS fu ñu toll gis mais mais ça c'est un sentiment il faut xanaa koo xam ne dafa def nag sulu noonu moom mooy tiit bu gisee policier man de moo gisee policier dama koy nuyu sant ko gërëm ko parce que nag c'est une force rassurante c'est une force aussi dissuasive pour ñi nga xamante ni peut-être dañoo nekk ci noo xamante ni naka su dul boo demee tugal tey nga de métro yi et cetera mais da leen di gis parce que loolu aussi ñoom ils font partie de l'État et aussi ils sont garants de la sécurité mais des citoyens donc je trouve que c'est tout à fait normal c'était la parenthèse mais pour revenir tey ci marche bi ak euh, population bi nu ñu wuyoo waa F24 euh, ban sentiment nga nga ci am sentiment pourquoi ma koy wax parce que on a l'impression que 12 euh, ans après ñu ngi ñëwaat di xeex encore la la même chose mu di cette question troisième candidature yéen ngeen tuddee ko peut-être deuxième candidat waaw parce que aussi que ñu mën a accorder wu sur les termes leen ne lu tax aussi ñu war a gën a mën a respecter sénégalais yi boo xoolee élection locale yi passé man j'étais candidate j'étais la tête de liste euh, proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais euh, ñun bi ñu demee di campagne mais dañu campagne c'est vrai que local ak présidentiel du benn mais aussi dañu campagne ci programme dañu campagne ci wax euh, lu tax euh, ñu war ñu joxaat les collectivités territoriales lu tax aussi ñu war ñu joxaat mairie et cetera et cetera communes yi Euh, ñu jàpp ne en face xam nga yàq moo gën a gaaw defar en face lan la ñu amoon pour wax euh, troisième mandat homosexualité ce que je trouve déplorable parce que pour man nag population yi tey toll nañu foo xamante nii waratuñ leen mën a nax te sax no kenn mënatu leen nax parce que homosexualité xam ngeen ne góor jigéen dañ koy tere Sénégal am loi bu leer bu koy tere li nga xamante ni moom mooy troisième candidature deuxième quinquennat la ñuy wax parce que loolu moom moo nekk ci constitution bu bees bi te loolu aussi euh, li ma gis mooy y a une certaine opposition heureusement que c'est pas toute l'opposition ñoom foofu rek maanaam la ñu arc-bouté comme si amuñu beneen mais nañu indi ci programme yi nañu wax ci li nga xam nañu wax ci li nga xamante ni tey ci avancement loolu tey bëgg est-ce que c'est pas logique que ñoom euh, opposition bi ñuy campagner euh, lii di troisième candidature parce que soo gisee Sénégal euh, fu mu jaar ak ay question de mandat ce qui s'est passé en 2012 ba mu jur autant de morts ci question question mandat suñu ñëwaatee tey ku mel ni président de la république ne du prononcé wu ci loolu ñu jàpp ne que dafa bëgg def euh, forcé def une troisième candidature mais c'est très logique ñoom ñu wax ko. mais Néné voilà Néné j'espère que vous conviendrez avec moi que quand même on veut aller plus vite que la musique tey ñaata personnes ñoo déclaré leur candidature parce que tamit bu ñu waxee deuxième quinquennat ñun. ak sénégalais yi nga xamante ne nii tey ils sont épris de paix de justice de qualité de vie ndax tamit bu ñu xoolee tamit nag depuis 2012 macha allah ah sénégalais yi euh, seen nekkin gën na yéwén de boo demee ca kaw ga fa ñu naan kaw ga boo demee tëngéej gi ma dëkk. boo demee feneen ak feneen. docteur yaa ngi infrastructure non mais. non non ah, yaa ngi campagne na sànq ba tey nit ñaa ngi fi wax te ne politique. on est des acteurs mais parce politiques. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils, ils n'ont de... bilan. Mais, mais parle du président, on fait de la politique. Non, ne parle du président. On parle du, de là, vous êtes du président Non, non pas encore à l'heure du bilan. ñi ngi man damay wax en fait je, je mets ma casquette de journaliste dama nekk ci ay faits man nekkuma ci ay commentaires ñi naan Sénégal Kaolack et cetera man ci ay faits laa nekk les comme comme on dit à l'école de journalisme les faits sont sacrés le commentaire est libre ils sont chacun est libre de commenter mais li am mooy ci Sénégal bi ñu dëkk aussi il faut ñu wax ko Sénégalu jàmm la Sénégal boo xamante ne nii ñi nga xamante ne nii euh, maanaam euh, seeni yoxo jegul seen ginnaaw wala boog en tout cas am na lu des am na ay programme yoo xamante nii état bi tegal na leen ko ñi nga xamante nii foo ñu dëkkoon dafa nekk comme en rupture ak li nga xamante ni moom mooy les grandes capitales régionales te gis ngeen pont yi mhm. gis ngeen autopont yi mais gis ngeen infrastructure yu mel ni ay hôpitaux mhm. bi mujj mooy hôpital bi nga xamante ni Amadou Tidiane Ba euh, fa donc moom li lañ ko tuddee ak yeneen le pont de Marsassoum on va non mais quand même euh, euh, Néné je je pense bu ñu waxantee dëgg donc dafa mel ni ñaari Sénégal moo am évidemment et évidemment évidemment c'est normal que euh, ce plateau euh, rit en même temps parce que ñoom ci boppam ñoom ñoo bokk fi ñu far man nag Sénégal laa far. très bien te Sénégal ñu ngi ñuy déglu. très bien alors. oui. organisation. Mm-hmm. donc ni mu waxee da ngay yaakaar ne force de l'ordre dañu encadré te loolu la ñu promettre woon mais les forces de l'ordre étaient à plus de deux kilomètres. lan fa tey. <coughs> sécurité F24 la. donc bu ñu indi amal ga waaw ñoom tam ñu ngi doon ñu ngi. force de l'ordre ñu ngi à de attendez quand on dit encadrement les forces de l'ordre devaient être partout ceinturées ñu et